mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen a jàmm ci seen tënkum xabaaru bis bi conseil départemental bu Koungheul niki démb amaloon na ab cérémonie boo xam ne dafa jëloon ay subvention daal di koy jagleel jeunesse bi muy conseil départemental de la jeunesse ak association des parents d'élèves nga xam ne jamono ji ñu ngi waajal examen ngir mu daal di leen jàppale loolu nag mu ngi amoon ci teewaayu euh, présidente bi di madame Dione euh, Socé Diop waaye tamit IEF Mamadou Oumar Gueye teewoon na fa yenn conseil départementaux yi ak CTJ beeg association parents d'élèves yëpp teewoon nañ ci euh, ndaje boobu noonu gannaaw loolu nag moom la présidente Socé Diop daal dina ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji amoon na ci école bi ba nga xamee ne yenn ci élèves yi dañoo grève woon ngir daal di boycotté examen blanc bi nga xam ne dañ ko fi dem amal fépp ci réew mi rawatina fii ci euh, Koungheul moom nag daal nay sàkku ci élèves yooyu ne leen nañu dal ànd ak euh, seen xel te moom sa fas yéene na toog ak ñoom waxtaan ngir ñu daal di trouver solution bañ mën a euh, dellu ci classe yi gannaaw loolu comme niñ ko waxee léegi daal nay jël toll ci un million daal di koy jagleel li nga xam ne mooy conseil départemental de la jeunesse waaye tamit daal di jël cinq cent mille cinq cent mille yoo xam ne nag trois cent mille ci budget bi la ko jëlee deux cent mille ci euh, poste boppam daal di koy jàppale euh, examen yi nga xam ne ñu ngi koy waajal fii ci euh, Koungheul gannaaw loolu ñaaddu ci village de Tanguèr nekk fii ci département bu Koungheul commune bu Gént Pathé ab jëy ya nag moo fa am ndax benn waay bu ñuy wax Ibrahima Gueye moom daal ak benn xaritam kër Gueye bañ jóge tool ya nekk seen kër euh, moom Ibrahima Gueye dañoo am benn jafe-jafe ndax euh, arme bi nga xam ne moom la way juróom euh, yoroon mi arme artisanale moom la jëloon di ko manipuler malheureusement nag mu daal di tiire te ko ci xaritam bi loolu nag tax na mu daal di koy gaañ ci biir ñu yóbbu ko hôpital mu daal di mujjee ñàkk bakkanam gannaaw loolu nag élément brigade yi nekk ca Ribo bañ jotee xabaar bi daal dinañ ñëw teg loxo ki nga xam ne mooy Ibrahima Gueye ndax jàpp nañ ne dafa rey doomu aadama ci lum tayul waaye tamit ki nga xam ne moom lañ daal di door ba ñu daal doon koy yóbbu ci district sanitaire nga xam ne euh, fa la mujjee ñàkk euh, bakkanam waaye tamit way juru ki nga xam ne mooy Ibrahima Gueye nga xam ne moom moomoon euh, fetal bi moom tamit daal nañ koy teg loxo ndax jàpp nañ ne amul kayit guy firndeel ne war na mun a téye arme à foofu ci biir këram. gannaaw loolu ñu ci déclaration bi nga xam ne coordination des associations de presse muy CAP daal dinañ koy. yëkkati gannaaw ba nga xam ne coupé nañ signalu Walf TV nga xam ne ministre des télécommunications et de l'économie numérique de Moussa Bocar Thiam moo ko def ñoom nag daal di nañ ñaawlu bu baax liñ jàppee énième acte perpétrateur boo xam ne dañ ko teg ci kaw journaliste yi te tegul ci dëgg tegul ci yoon. ñoom sax daal dinañ ci profité liste jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne journaliste yi ñu ngi koy rencontré rawatina ñi nga xam ne jamono ji ñu ngi leen teg loxo daal di leen tëj ci biir kaso bi. ñoom nag ñu ngi artu bu baax état bi ngir que mu daal di eh, teggi loxo ci journaliste yi waaye tamit ci Walf ngir que mu daal di retrouver signal eh, buñ ko deful fas yéene nañ amal ab série de manifestation ak série d'indignation moo xam ay conférence de presse moo xam eh, ba ñu sax ba daal di def une journée sans presse ngir daal di wax état bi mu dellu ginnaaw ci li nga xam ne mu ngi koy teg ci kaw journaliste yi loolu nag tax na fas yéene nañ amal ab conférence de presse niki vendredi 16 juin 2023 bu 10 heures jotee fële maison de la presse bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Babacar euh, Touré. ñu des wàllum tàggat yaram ak waajtaay match bi nga xam ne war na am muy qualification Sénégal Bénin CAN euh, CAN bi nga xam ne war na am fële ci Côte d'Ivoire 2023 ñu nemmeeku nag suñu ñaari. joueurs yi di pamata Matar Sarr di milieu de terrain ak Fodé Ballo-Touré nekk euh, latéral gauche dañoo am ay blessure ci entraînement yi ba tax ñu mën a njortu sax ne mën nañ bañ a bokk ci wala boog mun nañ bañ a joué ci match bi nga xam ne euh, war na am ni ki samedi 17 juin foofu ca euh, Cotonou. loolu nag euh, buñ sukkandikoo tamit ci xabaar yi nga xam ne recoupé nañ ko ci côté fédération sénégalaise mun nañ jort rek ne ñoom ñaar dañoo fas yéene forfait mun nañ bañ a complété équipe bi ci match boobu nga xam ne comme ni ma ko waxee léegi qualification la ci mille CAN 2023 bi nga xam ne war a am fële ca Côte d'Ivoire match bi nag mu ngi war am ni ki samedi 17 juin fële ca Cotonou.